li war waraloon samay tànk nag mooy tànki tuub ak tànki jégglu li ko waral nag fan yi xam ngeen ni defoon naa ab vidéo boo xam ne njuumte lu rëy rëy da am ba ca njuumte la ameet ginnaaw bi ay kilifa yu nekk ci dëkk bi uh, waroon ma xamal ma ni da ngaa juum uh, man nangu ni damaa juum ndax doomu aadama la ginnaaw bi tamit dox nañ ci ay tànk ndaxte ay kilifa lañ yoo xam ne ay sëti sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lan ginnaaw ba lañ jokkook sëñ Basiiru Mbàkke Xaadim Awa Ba ah ñaanal ma intervention ngir bëgg lu baax uh, ginnaaw ba lañ ci dox ay tànk jàmm ah ba sëñ bi nangul ma ma ñëw tuub si yàlla def sax euh, amul jot waaye mu tànnal ma bisu àjjuma bii euh, yàlla def ma ñëw ngir tuubal ko kon maa ngi nii toog ci wetam fas yéene tuubal waa àddina tuubal samay soppe tuubal mboolem mbokk yi may bàyyi xel njuumtal nag li ko waral mooy euh, dafa am ko yëkkate woon ay kàddu ci YouTube bi ma jóg ngir tontu ca kàddu yooyee indi ci ay dalil ginnaaw bi may tontu ca kàddu yee nag njuumte am ci ndax dan ma caa dugalal loo xam ni ab yóbbante la boo xam ni bokkul ci la ma war a wax ginnaaw ba may def nag ah ci laa jokkoo ak alaaji ka alaaji ka xamal ma ni ma ah, ah, soxna Momy Kébé nee na su fekkee bëgg nga li ngay tontukat ah, mu gën a am solo gën a dal na nga ci boolewaale kàddu yi wax ma kàddu yooyu mi ngi nii ci téléphone bi message baa ngi nii message bii nag moom moom ma indil ay jafe-jafe di message su tooñ di message boo xam ne kenn mësumaa xamee ci tooñ loolu nag doon loo xam ni ah boobu tey maa ngi sàkku ngir gis sëñ bi ngir ay kilifa yu yu mag ci dëkk bi dox ci ay tànk jàmb ndax ñoom lépp lu gis muy ay jafe-jafe rek dañ cay dox intervention ngir bëgg jàmm am te booba tamit ci ren woo sëñ bi waxtaan ak moom euh, ba sëñ bi nangul ma ko ah ma ñëw nii nag toog ci wetam tey fas yéene tuubal sëñ bas xaadim euh, awa ba euh, defar naa vidéo bu gàtt doon ci tuub doon ci jégalu ci biir vidéo bi sax doon ngeen dégg ma ni bu ma ko sëñ bi mayee incha allahu danaa yëkkat sama tànk dem ba àgg fa tuubal ko jégalu ko Euh, loolu nag tey moom laa def si nii tey euh, toog nii ak sëñ bi euh, jéglu ko kon la ma waxoon ci vidéo boobe rek moom laay firndeel ginnaaw bu loolu jàllee ah, li nga xam ne moom laa yëkkati woon muy ay kàddu njumte loolu ginnaaw bu ma defee sama ay gëstu dem naa ba xam ne loolu lépp dara du ci dëgg kon loolu lépp maa ngi ko tuubal waa àddina di ko tuubal mbokki jullit di mbokki taalibe di ko tuubal tamit kilifa yi nga xam ne dox nañ ci ay jéego ji leen bu baax waaye sëñ bi ma toogal tey muy sëñ Bass Xaadim Awa Ba mooy maa ngi koy tuubal baax baax di ko tuubal mboolem waa addina